Equivox TV nuyu nañ leen yéen ñi nga xam ne yéen a safoo di ñu seetaan fii ci Equivox TV la télévision à portée de main waaye tey nag dam leen di dalal ci seen émission ëttu maam ëttu maam nag bu ngeen ko déggee dafa nekk ni fii la lépp di xewee fii ci ëttu maam waaye tamit lépp fii lañ koy saafara ndaxte nag lépp loo xam ne dafay xew ci société bi dinañ toog fii ci ëttu maam daal di ko faram fàccee waaye nag à chaque fois émission bu nekk rek dinañ dinañ ci ànd ak ay ndaanaan ay kàngam yoo xam ne macha allah bu ñu waxee dinañ leen déglu waaye tamit bu leen bu ñu waxee euh, seen wax mën nga cee jàng dara ku ci mel ni ki nga xam ne rek moo di docteur Souleymane Lo nuyu naa la soxna si maa ngi lay nuyu di nuyu ñu ma bokkal plateau bi di am mbégte tew ci émission bi ëttu maam di am yaakaar rek di ñaan euh, lépp loo xamante ni waxtaanee nañ ko fi mu nekk njëriñu askan bi rawatina ci thème bi nga xamante ni ci la ñuy waaj a dugg. Mm-hmm. am na solo waaye ba tey rek euh, su ma gestoo sama gauche dama fay fekk ki nga xam ne moo di Babacar kenn mënta wax Equivox TV tamit tuddoo ki nga xam ne moo di Babacar nuyu naa la l'incontournable. <laughs> non maa ngi lay fay soxna Ami. Uh-huh. di nuyu les téléspectateurs de Equivox TV yëpp fu ñu mën a sente bi rek maa ngi leen di jaar jàmm. Uh-huh. di nuyu nga xam ne ñoom lañ seqal plateau bi su ma ko waxee dama sama papa ji Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi. Uh-huh. di nuyu soxna Fatima di nuyu docteur Souleymane. di leen nuyu di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci technique bi. mais l'incontournable bi moom day rëy quoi nañu nekk ay taalibe Babacar Ndongo la quoi waa mais bàyyi la mu nekk taalibe rek dangay nangu Babacar voilà maa ngi nuyu ñëpp voilà mais ba tey Babacar boo duggee ci ëtt dafay baax nga fekk ki nga xam ne moo di mag muy mm-hmm. suñu maam papa Ibou Ndiaye ña ko bàyyi nuyu naa la jërëjëf maa ngi lay fay di nuyu yi bu baax a baax a baax ndax ginnaaw bu ñu sante yàlla ci Seydina Mohamed sant xaadimu rasul Equivox TV dafa am lu bees taq lu muy indi bu neex yàlla lu téléspectateurs yi war a mën a seetaan bi ngeen ne ëttu maam nag te ñu romb soixante-dix ans kon maam lañu war nañoo war a mën a waxtaanee li nga xam ne dundu démb ak dundu tey ju koy démb ak ju koy tey doxalinu démb ak doxalinu tey defu démb ak defi tey loolu daal la ñu bëgg incha allah bu neexee tabaraka ñu yee ci xale yi ndax am na xale yu bëgg dégg mais mag ñuy wax ngir yàlla ñoo bariwul euh, dañ daan ëttu maam ngeen wax mag ñi dañ daan toog ci ëtt waxtaane loo xam ne ndaw lu ca génn lu ne jóge ca ëtt ba boo génnee ci mbedd mi am loo jariñoo moo tax daal émission bu am solo la boo xam ne bu neexee tabaraka Euh, satisfaction lay doon ci téléspectateurs yi nga xam ne saa yu ne ñu ngi jàkkaarloog Equivox di ñu seetaan ñu di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm. papa am na solo nga xam ne moo di ëttu maam waaye tamit kii elle est belle waaye xam nga ndax elle donne de l' argent. <laughs> waaw de l' nag moo gën nag. <laughs> non donne de l' ci góor nañ ko taamu <laughs> jigéen day joxe ñam papa. ami fay naa la di nuyu mbokku téléspectateur yu Equivox mm-hmm. di leen dalalaat nag fii ci seen émission ëttu ëttu maam bi nag xam naa tey ji man maay doon seen caat mm. lu ñu wax rek mm. ma daw faral jeunes yi yéen jël yi xoolal restez scotché ah. yéen man maay seen avocat ah, ah bien sûr na ba noppi <laughs> waaye ba tey rek comme duma leen ko waxee woon fii ci Equivox TV lépp loo xam ne rek dañ koy gis ci société bi dinañ toog fii ci ëttu maam daal di leen ko faram fàccal ba tax nag tey li ma indi rek moo di thème bi nga xam ne moo di viol mm. viol nekk loo xam ne fi mu nekk nii lëmbee na àdduna bi tas na kër yi tas na dëkk bi Babacar viol lan moo tax waaw man de bu ñu nee ëttu maam defe naa ëtt kàddu bi wolof la maam tamit kàddu wolof la viol moom tubaab a koy wax waaye ñun ëtt bu ñu fay wax viol bu ñu fay wax loolu du ñu wax viol siif lañ ñuy wax. siif waaw parce que tamit jëmm ju ne day daa war a niru takk ndeeram. parce que message lañuy joxe français yi am na solo waaye tamit maanaam. nañ koy ji nañuy jéem a xëcc baati olof yi di ko ci dugal pour nit ñi mën a gën a xam li ñuy wax. voilà siif te nanguwul. Mhm. waaw dañ ne day gën a bëri waaw ñàkk bokk na ci dama par personnel waaw parce que des fois ñu ne la nit siif na nit moo xam parce que siif bi moom fu ne lay amee góor day siif jigéen day siif <laughs> siif nag bu ñu ko waxee euh, maanaam. yemul sax ci siif jigéen sëy ak moom am ak moom sëy walla nga siif góor sëy ak moom siif yegg na si ba wax loo xamul wala jël loo moomul romb loo xam ne moomu ko nga siif ca yóbbu te kenn joxu la ci ndigal siif li ko waral rek mooy jàkk ñàkk jëfi ndigal te dégg na si Ibra Fall doon na wax ne ndigal caabi la su ëppee du ubbi te boo ko yootaanee yàq kànnaar ba kon lañ la digal da nga cay yem képp maanaam loo moomul ba ko fa loo xamul bu ko wax luñ la wowul bu ca dem lu saw yónneewul bu ca dugg mais nag bu ñu demee ba yooyu yëpp ñu romb ko ñi sañ a wax ñu tere leen ñu wax wala suñu waxee kenn du leen déglu ñi war a wax tamit même chose ñiy wax mooy ñi mel ni Babacar. loolu mais Babacar ñu gis ne siif la plupart ci góor ci jigéen ñi lay gën a bëri ak ñi nga xam ne ñoo di ndaw yi. maanaam jigéen ñi lañuy gën di saako. Ah. ñoom la ñuy gën di euh, siif daal. ah waaw lool loolu ma man sax lool boo ko waxee dama la naan na waaye ci benn côté dama la naan déedéet góor ñi même dañu leen di siif de. loolu ah, loolu loolu nga xalaat. ci jigéen ñi la gën a bëri. waaw non moom ngeen gën a wala yéen moom ngeen gën a bëgg fesal man nag amu ci bu ma ànd parce que nit ki moom bu fekkee da ngeen a war a séq dara yéen ñaar dama naan bu fekkante ne yow comme tey ñun ñu fi toog ñu nekk ay jullit di ay doomu aadama defe naa buñ tënk woon ci li ñu yàlla suñu borom bi wax sax loolu du am déjà parce que yàllaa ñu ko njëkk a tere ndax ki ne bul jegeñ ah waxula bul laal de dana ne bul jegeñ loo jegeñul kay doo ko laal mais buñ fa bàyyi waxi yàlla nag ñëw ci sunu nafsu ak sunu bàkkan dina indi des fois ñuy dugg ci lu nu moom ñuy dugg ci loo xam ne du sunu warteef maanaam ba yëgg ci di siif nit yaa ngi dégg di siif jigéen wala di siif góor te yooyu yëpp bu ci nekk lu war a mën a ñàkk la am na loolu daal li ko indi lenn la rek nafsu bokk na ci te teggi waxi ki nga xam ne moom mooy buur bi nu sàkk dindi waxi mag ñi sànni fële di doxe sunu nafsu ba des fois nag nga yegg foo xam ne nii ah dootoo moom sa bakken ndax bakkan am na foo xam ne su fa yeggee yow mënatoo koo contrôler da ngay def rek balaa ngay rendre compte ci li nga def da ngaa pare soo pare da ngay doog a xam ne yow def nga njaaxum wala toj nga penc loolu mooy li indi loolu et tamit bokk na ci tey li ñuy gis ci loo xam ne nii ah, ci dëkk bi maanaam ay boo ko waxee ñu ne nangam ak sàngam waaye am na xëy na daal na am ca maam ya ndax kii sunu papa la sunu maam la waaye xam naa bu ni mu mel tey par rapport ni ñu koy déggee daaw ñu ko dégg noonu bokkoon na ci nag ñu njëkk ñi leen dimbali solo mi da ci amoon solo solin bi waaye léegi nag comme ñun moom ah maanaam daal fi mu nekk nii boo ko waxee ñu ne voilà da nga lii da nga la waaye nit ki moom boo bàyyee sab ànd toog ci àndub jàmbur mhm. ah toja la cay xel a fekk rek maanaam yére yi moom parce que tamit xam nga jigéen toll na mu war a toll mel na mu war a mel di ndaw tollu ci deretam di yëngu góor noonu mu mel mel mel wenn melokaan wi ah ne ci diggu mbedd ah? wala mu nekk euh, dugg ak góor ci ab roq ah. ñuy fay nekk mhm. ba ñu xëy xëy ñu ne siifante am na fa loolu sax layal ko day daal di jafe. day ndax siifante nañu wala siifante wuñu maanaam ndax siif na wala siiful. loolu moo njëkk ne question bi te li ma la siy dolli mooy. Mhm. yàlla mi ñu sàkk dafa am lu mu ñu waxoon ndax bu ñu nee siif njaaloo day daal di dugg. te yàlla am na lu mu ñu waxoon ci njaaloo. Mhm. ci lu war a tax ñu avoué ne njaaloo am na. Mhm. defe naa bu sart yooyu matul waru ñëw ne njaaloo am na bay wax waxi siif ak yu mel ni waaye nag léegi da ngay xëy xale bu jigéen. kereel benn Babacar wala benn Souleymane ne def maa siif ñu dem ci yoon pour yow tëj nañu ay nit 100 ñoo nga fa. ci ay Babacar nga abordé benn euh, kii bu am solo muy li nga xam ne moo di colit dañu gis ne jigéen ñi ñooy gën di euh, faral di nekk ñi nga xam ne ñoo di victime yi Fatima ci yow laay ñëw. xam nga Babacar dafa wax lu am solo. Mhm. muy col colin ci wolof dafa dafa am importance. Mhm. tubaab bi ko woowee tenue. Mhm. am na si ñoo xam ne nag ça dépend ci tenue bi ngay sol am na ñi ñoo xam ne nii tey mun nga sol loo xam ne dafa yëmbax lool. mais teewul danga leen di attirer man je peux dire que ci xel la parce que tey jii man jàpp naa ki sol yi di romb moo ko xoolee beneen bët bu dul li mu sol beneen bët boo xam ne ni ay parti mooy feeñ ndax nit noo mënti mel ak loo mënti sol sa silhouette dafay génn ami am na loo xam ne ñàkk gëm sa bopp la man boo ma bëggul bëgguma la lu tax ma la si honore ko boo ma bëggul bëgguma la mhm. donc nag tey jii nag boo doxee noonu gëm sa bopp tey jii je veux dire que port vestimentaire warul la yëngal mais tey nag euh, bu ma génnee ci avis bi nga xam ne mooy sama avis contradictoire bu Babacar benn côté mën naa ko nangul benn côté mun naa ko nangul nii tenue mën na ko waral démarche mën na ko waral li nga xam ne ni moom mooy âge parce que ñoo xam ne dañoo am faiblesse su mineur ñoo la leen yàlla bindee am na tamit li nga xam moom mooy caractère xam na góor yoo xam ne dañoo ñëmi defi xam nañ xale bu jigéen bi xale bu jigéen baa ngi leen di jaay affaire ñu ne non kii day gaynde gayndelu mhm. jéem koo forcer loolu tamit mën na nekk li nga xam mooy cause viol mhm. beneen bi nag de wax na ay violu góor man ma góor gu ji violé yàlla dafa dogal <laughs> mënuma koo gëm. <laughs> si gëm. Ah. jigéen ñi dañ leen di violé comme góor ñi tamit dañ leen di. violé man. Mhm. li ma gis moom mooy ñàkk gëm sa bopp <laughs> parce que tey jii ni góor la plupart bu ñu koy violer certes dina am benn affaire boo xam ne mu ngi ci ginnaawam mhm. benn menace wala lu mu mënti doon mhm. mais ni boo xasee ba gëm sa bopp gëm nga sa bopp tey jii bu may def benn affaire mhm. bëgguma koo sékk ak yow nga menacé ma ray ma man je préfère nga ray ma ma deew ak sama ngor mais man moom violu góor moom mënoo koo gëm <laughs> mënuma koo gëm papa ñoo ko bàyyi xam naa moo leen di départager yéen xam nga xam nga lu tax ma ma noppi mhm. dama bëggoon nga jox ko mu wax ba pare mhm. mag du yàlla waaye dafa yàgg ak yàlla mhm. te it wax rédaction la bi mu amee entrée en matière conclusion fu ñu jaar conclure comme que ay ndaw ngeen ma toog ak yéen te kenn ku ci ne dinaa tontu Babacar dinaa la tontu yow mii surtout yow <laughs> parce que wax nga léegi ne jigéen ju agressé nga ma te jigéen ne yaay bañ yaa ko tere neex kon kañ jigéen a agressé. waaw papa déedéet. yaay bañ yaa ko tere neex ña daan yekkataan Babacar ba nëgën ñu ngi yekkataan xale yaay yoo xootul. waaw yuuxu de bu jëkk bu jëkk koo mas mu yuuxu. waaw loolu am na. léegi nag boo yekkataanee ñu yombal la ko. kon yuuxu amatul. Mm-hmm. man viol mënuma koo gëm. parce que dama wax ne partie jigéen dafa sori ci moom. ki nga dem ba libéré ko ko. xanaa rey rek. ginnaaw rey. jigéen bu bañee mënuloo ko dara bu yoboo ngay peser cent kilos. Hmm. muy peser cinquante kilos doo ko man jigéen bu la pour nga séq kook moom. Hmm. ba nga ko séq moom adduna bépp na leen dégg. wallaay loolu mais ki ñëw di la yakkataan nga yombalal ko ko. ba pare ne ko yaay bañ. Eh, eh, ah. yaa ko tere neex. Hmm. damay bàyyi ba ba ba ba. Euh, euh, euh, sunu psychologue bi pare. ma conclure. ndax tey indi nga thème boo xam ne. àdduna bépp war nañ cee war a mën a waxtaan. fa mu départ rek la ko indi laa lay wax. Mhm. bu njëkk dañ daan départager góor ñi ak jigéen ñi. léegi xale yu góor yi xale yu jigéen yi fanaan. télévision yi di génne fóonante ak seex làmmiñ ak lu ne. <laughs> waaw <laughs> xale bi man xale bu bu bu bu tëddee ak moroomam rek seetaan benn affaire da koy da koy essayer seet ba xam lu tax mhm. te c'est très dangereux ñu ngi dugal ci yi ci loo xam ne mhm. bu ëllëgee dina andi catastrophe bu rëy mooy film yii nga xam ne mhm. fóonanteeg kottanteeg ànd ak lu ne léegi euh, da ngay jëm ba yéemu sax ci àdduna xam ne axiru samaan lañ ne mu mujjug jamono am na sama benn xaritu professeur buy jàngale Limaamu Laay dama ne grand ñox ma ne ko mun ne ma di nga bu récréation jotee juróomi xale yu jigéen yoo seen ñu dajaloo di seet seetaan portable film porno la ñu seetaan kon li indi viol bi hmm. mooy départ bi yar bi hmm. yar bi moo indi viol bi hmm. boole ñaar ñu bokk ndey ak baay léegi kii di góor kii di jigéen ñu gis kële Cheikh Lamine ñu kële ci ci télévision bi. bu jógee da koy essayé. moo tax yaram dawatul. Mhm. léegi da ngay dem ba ban ban àddina lañ ne. bu doom mënee bu bàyyi mënee tiim doomam ji mu jur. Mhm. séq ko moom. Mhm. loolu du viol. loolu ñàkk ngor la. ñàkk yëg-yëg. doomu aadama bu mënee jël séeram bi mu bokkal ndey ak baay. di ko séq ak moom. vraiment kon fu àddina jëm. moo tax ma bëgg leen a bàyyi ba ngeen waxtaan ba pare ma conclure leen wax leen démb na mag ña daan dundee démb mm. na mag ña daan yare démb mm. na mag ña daan doxalee mm. mais àddina changé wul nit ñee changé fi jant bi daan soyee fi lay soyee fi muy fenke lay fenke ah kon lan moo ñun ñoo changé mm-hmm. changement bi ñu changé nag ñun borom kër yi mm-hmm. ñun ñi nga xam ne euh, euh, euh, ñoo leen mag mm-hmm. dañ ñu yar te ñu siraatikal mu sàqim teg ci yoon léegi nag tubaab bi am lu mu ñu naxee mooy droit de la femme droit de l'enfant foofu laay yem wax am na solo mais docteur Souleymane Lo lii suñ papa wax léegi c'est vrai jigéen dañ koy violer comme góor tamit dañ koy violer mais ci cause yi tamit nañ ci euh, focus daal d'accord merci beaucoup man rafetlu bu baax euh, intervention yi fi jot am parce que am na solo bu baax a baax ndaxte thématique bi moo demee noonu bu ñëwee viole comme ni ko Babacar waxee léegi mooy sàkku ci wolof te sàkku ci anam joo xamante nii lewut alors euh, bu ñuy gis nag euh, wax dëgg yàlla dañuy jamono jii lañ koy gën a wax mais tamit dañuy xam ni viole phénomène la maanaam si ñun sociologue yi dañu naan phénomène phénomène loo xamante ni mooy xewet maanaam yàgg nay xew te dafa ànd ak askan ànd ak société ba ilaa yow mi diine sa viol day continuer dem xam naa ne dina jafe loolu ñu xëy ni viol dootu am ci mhm. société parce que mhm. dafa am xewit yoo xamante ni mhm. ci ci ni ñuy amee mooy tax ba société dina jafe mu tàggoog moom donte ni nag dafay am jam génération bu ñëw ak la muy tombeel alors suñu delluwaatee tuuti ci ginnaaw c'est vrai que ni ko sama papa ji waxee léegi bu ñu delluwaatee tuuti ci ginnaaw ñu xam ni sàkkutee fu yool bi ñuy wax tey jii euh, dafa mës di am mais mën nañ ko jàngat ci ñaari anam yoo xamante ni daan na am anam goo xamante ni sax dañ ko daan xaw nangu ci société loo xamante ni du ma nit lu ñu yoonal la daganal la waaye lu ñu daan noppiwaale la ci kaw dañ ko considéré woon ci règle yi nga xamante ni mooy tax ñu jubbanti société parce que jigéen ñu ci bëri lu ñu xamut mooy dañ ko daan wax ni bul génn rawatina sax boo nekkee ci société naan jigéen du génn timis lan moo taxoon ñu ni génn jigéen du génn timis parce que jigéen moom mi wut bu timis joxee muy dox léegi bu fekkee ni dañu la tegal yoon comme ni loi yi mel rek bul def lii boo ko defee dañu am sanction bu ñu la ci teg donc viole sanction la woon ci société bu njëkk dañ ko daan sanctionné jigéen donte ni nag du ñu dañ koy wax dañ ci ànd mais dañuy nettali pour nit ñi xam exactement viol boobu bu njëkk bi muy nekk sanction ci jigéen nga xam boo génnee ji boo génnee timis wala nga génn te dañ ne la ngay yem ci sa pooju ndey mm-hmm. nga génn timis jot nga ni benn nga dajeeg xale bu góor xale bu góor bu dajeeg yow daan ak ah, kii nañ ko siif donc bu ñu la siifee boo légee dootoo génn wala see yeneen i moroom bu ñu leen toogloo seen taaj pooju ndey duñu ko génn mm-hmm. donc bokkoon na ci jikko yar donc xeet boobu donte ne nag jamono juñ toll ñaaw na mais amoon na yeneen i jamono ci maam euh, boo génnaan ñàkk a dëppoog say say waajur nag dëppoog seen i seen seen i digle ak seen i truc lu mel noonu mën na ca fekk ba ci mariage am na ci yenn ethnie maanaam yenn xeet du ma wax tudd pour ne créer ay kii yoo xamante ni euh, ci ni nga xamante ni noonu la ñu jëlee mooy viole viol ni ñu ko définir ci ci ci ci code code code pénal actuellement ci législation sénégalaise ni ñu ko définir nga xamante ni mooy seq ak nit ki ci anam bu mën a doon moo xam da nga ko baaram moo xam danga ko yebal leneen mm-hmm. wala moo xam yow ci sa a nga yegg ak moom mm-hmm. ci loo xamante ni eh, da nga ko teg fitna wala danga nga ko xoqatal wala da nga ko menace wala nga def ceeg eh, violence mm-hmm. donc ñàkk teyu bakkanam ak teyu bakkanam waaw ci ñàkk bakkanam mais soo soo delluwaatee ci ci ci ginnaaw nga gis ni bu boobaa kon ñu ci bëri mën nañu société bi dañoo yàgg di violer kon yàgg nañ ci phénomène bu mel noonu parce que am na ci yenn xeet yoo xamante ni eh, dañ daan def gëf xaw ma ndax ñeen ñi xam nañ ko maanaam Euh, ci ay mbokk dañ naan am kii dëkk fii ki dëkk fa la mhm. nga bëgg ko jël soxna moo xam dañ saa nangu may la ko wala nanguwuñu may la ko nga daal di ànd ak say moroom déggoo ngeen dem sàcc ko. waaw ah, loolu daan na sàcc googu diggante bi. Mhm. viol bi moom mooy mooy daganal diggante bi. tant que mhm. viol bi amut maanaam tànk que siifloo ko ci diggante bi bala ngeen a yegg. seeni waajur mën a ñëw nanguwaat ko. mais soo ko siifee rek. dafay wane ni kon jarutul ñu koy jël si bu ñu yeggsee ñun yegg nañ si moom de mm-hmm. doo daal di xool nu ñu waxtaane ba juboo mm-hmm. donc nga gis ni bokkoon na ci culturellement viol dafa nekkoon un élément culturel boo xamante ni ci anam yu nekk mën nañ ko xool mm-hmm. benn bi dañ ko daan jël ngir sanctionné ci jigéen gi nga xamante ni dëppoowut ak ndigalu ay waajuram ci yu mel noonu danaan am société bu ñu la defaan du mujj fenn dañ koy waxtaane ci seen bii rek mu jeex su ko defee ki ñuy yedd mooy ku jigéen ki parce que waxoon nañ la nga yem fii yemuloo fa nga dugg noonu Euh, de sa même de la même manière bu ñëwee ci mariage ci mbirum sëy tamit doon na yoonal daganal sax ak sëy ndaxte ci nu mel noonu nga lañ daan sàcc nit gëf ko mhm. ci diggante bi bala mu yegg ñu sàkku ko ci diggante bi mhm. bu yeggee bu seen waajur ñëwee bu ñu xamee ne sàkku nañ ko rek dañuy waxtaan pour mu toog su ko defee sëy boobu continuer mhm. donc nga gis ni viol daana am waaye jamono ji ñu toll nag ni nga xamante ni noonu lañ ko léebee boo ko delloo ci ginnaaw day doy waar parce que da ngay gis ni xeet yooyu am na te fi mu ne nii aspect yi ñu ko jox lépp dafa xaw a doy waar bi damay def damay jàpp li nga xamante li nga xamante sax moo doon neexal di xumbal diggante yi yooyu yëpp tey bu ñu la xoolee ni xeet bu si nekk rek xeetu viol la da nga naan déedéet lu ci mel ni harcèlement sexuel mm-hmm. dañ ko boole ci loo xamante ni du viol mais mën na indi viol mm-hmm. romb nit ki tapas ko romb nit ki daani ko ah yow ni nga mel ni sa nangam bi sa nangam bi comme ni ñu koy faral di waxee yooyu yëpp mm-hmm. dañ ko considérer ni élément boo xamante ni mën nañ ko jël en compte ci viol parce que genre harcèlement la boo xamante ni dañu jàpp ni manqué nit ki dignité am la mm. manqué nit ki respect am la donc nga gis ni tey jii dëxëñ lañ ci dëxëñ loo xamante ni ci jamono ñu toll mm. yu ci bëri bëri bëri même waxtaan nit wax boo xamante ni dafa xaw a euh, sexuel yu mel noonu mm-hmm. dañuy considérer que ni tey jii yow yaa ngi ci tànku peut-être sàkku nit ki si mm-hmm. xel walla ci wax ci nàngam mm-hmm. donc yaa ngi koy harceler ci lu nga gis ni tey jii jamono doyo bi ñu ko jox nekk na loo xamante ni wax dëgg yàlla mucc ci dina jafe loolu rawatina. alors bu ñu dellu siwaatee ci li koy waral nag. Mhm. bëri na ay anam yoo xamante ni tey euh, dina tax viol di am. ci kër yi mag ñi dañ daan wax parce que yaa fi wax ëtt maam. Mhm. man damay daan fàttaliku sama maam. gune sax bu defee taatu nañ dañ ñëw ay eh, sàngal. Mhm. ñu wax ñu ndax ki gis lu ndaw li mën na xelam dem ci lu mag li. ndaxte nit tamit nit la rek te mm. damay faral di wax ni li liñ ko gën a mooñal moom bokk na ci yëg-yëg di mbëggeel désir dafa nekk ci doomu aadama mm. moo tax dañ daan sàmm suñuy cër mm. te ci lu mel noonu tamit moo tax ba euh, lislaam mm-hmm. daan digle ñuy muur suñuy cër ngir lan agression bi ñuy faral di wax tey ci jigéen di harcèlement soo koy xool tamit ci contraire bi da ngay gis ni am na ñoo xamante ni dinañ agressé góor. ci kaw fitnaal ko ci kaw am na ñëpp bokkuñu yem. Mm-hmm. yow su sa xel ne toll ci mën nga muñ li du ñëpp mm-hmm. ñoo ko mën a muñ am na ñoo mm-hmm. xamante ni mën nga leen a xool bët bi nga leen xool yóbbu leen fa sori. am na ñoo xamante ni bët boobu yóbbuwu leen fa sori. donc nga gis ni ku si nekk bokk moo tax mag ñi dañ daan fàggante ko même góor daawut sang jigéen. ndax donc docteur yow yaa ngi appuyé li nga xam ne moo di colin bi. waa évidemment bokk na ci li nga xamante ni moom et d'ailleurs mhm. sax suñuy loi dañ ko mhm. dañuy dafa am ñaar yoo xamante ni benn bi dañ naan attentat à la pudeur mhm. moom lañ gën a xam ci société bi attentat la pudeur moo xam tey nga génn sa sa awra wala nga seq nit foo xamante ni euh, warut yu mel noonu mooy attentat la pudeur mais am na outrage public à la pudeur yu ci bëri nag duñ koy faral di wax outrage public à la pudeur maanaam mooy Euh, nit ki nga col moo xam nga solu yenn sol yi sol sol colin goo xamante ni tey mhm. foo romb mhm. euh, daal di xaw a fitnaal nit ñi seen melokaan mhm. ba nga xamante ni wala nga wax kaddu goo xam ne nit ñi dañ naan nit ñi da am am tiitaange ci loolu noonu yoon suñu yoonu réew daf ko dàq maanaam képp ku ko def dañ la war a mën a topp te ba ñuy xool tey naan viol punir nañ ko def nañ ko criminal def nañ ko crime jóge nañ acte considéré ko comme étant benn peine rek mais yóbbu nañ ko ci crim ñu bëri di kontaan di fecc ma ni li ëpp solo au lieu ñuy punir nañ ko prévenir maanaam bu ñu yegg si rek ci ku violé ñu teg la daan bi mais nañu xool naka lañu mën a def ba viol du am sa ba ñu tegee daan mm-hmm. loolu moo am solo te loolu nag il dafay laaj ñu delluwaat ci cause yi li ko war a mën a indi li ko war a mën a sabab mm-hmm. te li yàlla santaane moom du deñ mm-hmm. bu nit ñi muure seen i cër parce que lu ci bëri sécurité la maanaam soupape de sécurité da nga tax sax yow kii naroon na woyof wala naroon na def nangam du fa yegg li tubaab bi wax l'occasion fait la larron mm-hmm. am na loo xamante ni bu sa sa bët tegewut xañ na mën nga ko bañ a xalaat mm-hmm. mais bu sa bët tegoo mën sa bët mën na dem feneen bu doxantoo yegg feneen doxantu yegg feneen bu mm-hmm. boobaa nag nit tamit ñaar la dafa am xel am loo xamante ni instinct la mooy la raison et l'instinct des fois su fekkee ne dem nga ba nga xamante ni li ci animalité bi moo gën a dominer sa xel. Mhm. nit ki animal rek nga nekk te animal boo ko nekkee mooy waral béy di sëy ak doomam. Mhm. mbaam di sëy ak mm, euh, yaayam et cetera. Mhm. parce que xel nekkatu fa. te lay yóbbu xel nag. mooy li na doomu aadama bi ba mu nekkatut. donc moo tax soo ko sàngee nag suturaal ko. yaa ngi éviter sa bopp lu mel noonu. mais yaa ngi koy éviter keneen pour mu bañ a daanu ci lu mel noonu. donc effectivement melokaan mi daf ci am solo ci. d' ko docteur waaye Pape Ibou Ndiaye ginnaaw colin bi léegi nga abordé woon na benn benn point boo xam ne dafa am importance muy attitude maanaam boo déggee attitude mooy jikko. Hmm. ni ngay ni ngay manifesté woo melokaan ba tax nit ñeme la. Hmm. ba bay am xelu yegg sa kaw. xam nga da da ngeen toll da ngeen jamono joo xam ne kuy tiit booy woo tiit hmm. ndax li gën ci nit ki bu toxoo ci nit ki. bàyyi ma tanewu ko da koo gën te mhm. ku bàyyi ma gën war ngaa xoolaat sa bopp mhm. sutura toxu na kersa taxu na mhm. yar taxu na nan la fan di gudde dama wax sànq ci waxu Babacar ne jigéen ñee agressé lu tax waaye dama ne lamp yi li ko taal prise la dugal rek ci courant bi mu man koo taal waaye bu ñu roccee prise bi léegi courant yi fay <laughs> ñii nag courant lañu parce que dama ne góor góor rek lay doon te it doomu aadama dina sol col colin goo xam ne nii laa mel lay solo <laughs> bu njëkk ñun suñuy jamono jigéen bu masaana sol pantalon tunique la koy booleel tunique bu ëgsi ba fii nga xam ne doo gis liyam ah waaw léegi nag nii laa mel bu ko jigéen ji wane te ngay xale bu góor mais loolu viol amu fa yow ya violé xale bu góor bi parce que yow yaa ko yaa eh, waaw <laughs> yéen non yéenay violé xale góor bi non lay wax de lii ma la wax xam naa ko de parce que mel melokaan woo xam ne ku la gis ku dul sa papa ji la jur ku la gis bëgg la loolu yéen a koy provoqué. mais ki provoqué doomu aadama na ta am na ñu ànd ak sago. Mm-hmm. am ñu amul sago. Mm-hmm. am na ñoo xam na bu ñu tëjoog jigéen ci biir nekk. Mm-hmm. xanaa dee rek. waaye li mu ñu soxla. waaw di jaay bu ñu leen doon jami paaka. danañ ko am di leen dóori la war weer sax. danañ ko leen tee def li ñu def bu ñu paree nag. te eh, dafa dafa dafa amul solo. Ah. bànneex boo matul boo xam ne matul matul deux minutes. deux minutes waaw. jarul tëdd ay kaso dix an déedéet jarul te loolu lépp ci xel ak xalaat la. Ah, ah. mais am na doomu aadama yoo xam ne. bu bu ñu tëjoog jigéen gisatuñu kaso gisatuñu fenn. li ñu soxla daal. la na fajoo bu njëkk. yëkkataan dafa am. siif am. sës am. waaw sës waaw sës it gis naa ko. da nga gis ko sabar rek. nit di ko gis bu jekko jekk derrière rek mu dikk ko ko fa rek. <laughs> waaw aju eh, eh, eh, xool fële. waaw bi day jekk ba ca lam rek mu tooy waaw. mais loolu loolu gisatoo ko amatul. papa loolu faiblesse la. amat mais danaan am bu njëkk laajal sa waay. waay danaan am ci sabar yeeg même ci biir kaar yi. am na ñoo xam ne da ci am ba tey. am na ñoo xam dañ daan sës sës jigéen. kaar yi sax mu ci biir kaar rek nga ah ci bu njëkk góor bu gisoon li nga xam pooju jigéen rek mm, yu góor yi mais mais mais li nga war a nëbb mm-hmm. boo ko wanee dootul jaril kenn dara mm-hmm. xoolal xale bu jigéen bu dox ba séram naaw rek nga seen fii waaw nga seen fii xale bu jigéen sol mini bu yem fii nag te doo ko xool na waaw mais lu ko waral na jigéen ñi xoolaat seen bopp fa ndox daan taa ba ndëgë ni boo demee fekk fa tepp teppal ya àdduna jeexul mais jukko yee yàqu te jukko yi pour defar ko dina doy waar ah la jukko yi dina doy waar parce que portable yi dafa am lu bari lu mu yàq waaw télévision yi am lu bari lu mu yàq parce que li mu li ñu yàq mooy lan moo tax ngay seetaana ndoog sa doom télévision góor ak jigéen tëdd ci lal sumeeku ku nekk sax sa làmmiñu morom mais xale bi bu génnee bu génnee loolu lay seet. loolu lay def léegi bu njëkk daa nga toog ba laayal daa nga toog ba am ñaar fukki at. doo xam jigéen. boo de bu ñu la takkalee jabar sax dañ naan la boo demee nii ak nii nii ak nii ngay def xale bu am sept ans rek boo ko waxee nañuy def jigéen mu war la ko. loolu yàggatu kon fu àddina jëm. fan la àddina jëm. bul sonal sa bopp. parce que bu la yàlla bindee dafay dawale sam xel boole ko sa wërsëg. Mm-hmm. muy marchandise. Mm-hmm. liggéey gañ ak liggéey perte mm-hmm. nit ki liggéey gañ. Mm-hmm. mooy ki conserver dignité am. Mm-hmm. parce que la dignité augmente la valeur d'une personne. doomu aadama yi amatuñu valeur rawatina jigéen ñi man jigéen ñi laay waxal bés bu nekk. bu fa jotee ñu ànd ak ñiy naaw ànd ak ñoom naaw ne fër bu takk jotee. nga dem seet ku toog ci pooji yaayam. nga takk ko nga takk ko kenn bëggul jëkk eh, eh, jabar juy naaw. tey ñi ah. naaw a ah. Mhm. naaw yi bari naa. waaw sax naaw picc rek la jig. dañuy fekk koo xam ne dafa toog ci pooc yaayam te terewul dañ koy violé. loolu ko ko def lan nga koy tuddee mooy nit ku baaxul la. waaw siif mbon tamit day am ci doomu aadama. koo koy siif Babacar mën naa bon. fekk ku réglé ku toog mu siif ko. waaw loolu man sama jikko la. xel ma wàññeeku la xel wàññeeku la man maa baaxoo noonu. bon sama mbonuk bopp. bu hmm. keroog damay assumer ne man maa bon. Hmm. yaa ngi dégg waaye moom siif ga ma ko siif hmm. bu fekkente ne mu ngi ci poche way juróom déggal leen hmm. du yàq dara ci àddinaam déedéet parce que mu nga fa mu war a ne mu nga ca la mu war a ne yow mi jóg nag ngir na da nga koy yàq si su këroogee yaa cay mujj yàqoo Babacar boo gisee ñu euh, bàyyi loo xam ne mhm. waroon nay am ba dëgg ni muy mhm. laabaan waaw waaw laabaan bàyyi nañ ko dañ daan wax naan dañuy siiwal doomu aadama beeg lii siiw lii sewul ay jëkkër ak jabar tëdd bët set ñuy dóor ay sabar loolu mooy mais loolu daf daan yokk jom nit mm-hmm. parce que ku ñu euh, dóoroon njëriñu fajar sa yaay dina ne ah dégg nga dégg nga sabar yooyu te sa nawle lañ ko defal bu ëllëgee diggu dëkk fexe ñu ji mais nit sa daana ëmb ruus a génn seen kër mbaa mu dem kër bàjjanam mhm. mbaa kër nijaayam day taxu seen koñ mhm. dem dem wasina fa mais léegi ma man daal man daal foo àddina papa day du duma la du ah, waaw ah, tey demal demal c'est euh, moom li muy wax nii dafa nekk loo xam ne dafa amoon mhm. te moo nekk suñu ay valeur ñun sénégalais te loolu déjà moom la ñu dindi tege ko nële loolu nag bu fekkente ne danga ko dindi tege ko nële di dundu leneen gis nga leneen loo dund leneen te te te du yow li nga moom la la fekk lii rek lay jur ay coow yoo xam ne day gën a lëj mbir yi di gën a jaxasoo saa su ne jiiñante bi mel ni tulleeg màlle violé nañ ma siif nañ ma yàqtaan nañ ma parce que li ko waral li mu wax la rek dañoo bàyyi la ñu ne professeur wax na ko maanaam nit ki dafa am ci yu ñu daan natte doomu aadama ci ëtt parce que ñun li li ma xam ci ëtt man man ma dëkk ca bawal dañ daan reer ba suur toog ci ëtt bi di waxtaan des fois ñun ñuy léeb suñu maam sax dafa ñu daan léebal ci biir léeb yooyu dafa ñu daan jox ay message njàngal la njàngal yoo xam ne ëllëg suñ génnee moom la ñuy demaale parce que léeb boobu pour yar la lañ maanaam yar la éducation de baax lañ ciy jublu bu ñu reeree ba pare bu tëddi jotee ñu tëddi buñ ëtt bi bu ñu xëyee bu dee nawet la exemple ñu dem ci àll ba bay bu ñu ñëwee ci ëtt bi la ñuy noppaloo teg añ bi añ ku ñu war a waxal loo xam ne nii yéen ko war a ma maanaam lu waa ëtt bi war a bokk la parce que message yi dafa am foo xam ne bu ci ne ak fa mu war a ñëwee maanaam li ñuy wax bu dee am na wax joo xam ne waa ëtt moom ñun ñu ne fii ñëpp ñun la ko maam di boole wala baay wala yaay wax nu ko ñu déggandoo ko ku nekk dem sa yoon waaye am na ci loo xam ne nag bu dee comme li olof naan waxtaanu biiram néeg su keroogee nag ba rombee ëtt ba dañ lay woo ci biir néeg bi wax ak yow mm-hmm. loola yow rek yaa ko moom yaag sa maam wala yaag sa yaay mais am na ci weneen waxtaan woo xam ne day génn ëtt ba dem ba ca pénc ma mm-hmm. parce que ñetti pàcc yu bokkul la ëtt bi moom daan nañ la fi yare xamal la fi wax la fi yedde leen fi yéen ñëpp ngeen di déggandoo message bi pour ngeen moytu lu bare baree baree bari waaye nag gis nga nit boo demee ci jamono ba yow maanaam li kii wax léegi amoo bi yar mel ni Babacar ñàkki teggin ñàkk kersa ñàkk yitte yii bu dajee si nit maanaam lu ko dalagul ci lu ñaaw daa yëg seegul waaye mu ngi ci yoon wi mm-hmm. loolu nag actuellement foofu la ñu nekk boo bëggee dégg-dégg génnewuma ci sama bopp naa ma maa ci jiitu yow doo fekk mag jox ko war ma mm-hmm. doo jox kenn war ma mm-hmm. yow kay waxuma la siif waaye yow des fois nga dégg sax ñu ne la siif nañ siif nañ rey nañ ko wala nga dégg ñu ne ay ay ay ay xale ay góor ki jigéen dajewoon nañ ci benn place di defante ay musiba ba far sax nga dégg ci ay bakkan yu ca des loolu lu ko indi maanaam parce que dafa am lu moom loolu la ñu jël teqi ko teg ko fële ne daa am lu ñu war a dund ah parce que léegi euh, c'est c'est le monde qui parle xaw ma c'est le monde en wax ay wax ay wax yoo. Babacar jaaga non mais waaw. Babacar papa waaw. keroog bi ma déggee piscine pàcc. waaw piscine bi ma ko déggee. waaw laa ne àddina tukki <laughs> moom kay jox ko kàddu gi rek. Ah. parce que Pikine. fa doy waar de. xaw doy waar. ah non il faut moi non pas déedéet man man ami <laughs> teguma ko jigéen ñi de du jé waxuma ne jigéen ñi la man nit ñi laay waxal ci suñu bopp mhm. déggoo ma ne man maa ci jiitu man mhm. góor ndax jigéen fu mu yàqoo mhm. góor a fa taxaw bëgg la jigéen yàqul boppam di yaa ngi dégg am na ñoo xam ne duñu yàq seen bopp am na ñag ñuy volonté wu ba yàq seen bopp mais am na ñoo xam ne yàquñu seen bopp ay góor a leen fexe ba yàq leen Mm-hmm. góor ñooñu tamit du ñu góor ñu baax ndax am na góor ñoo xam ne tamit ñoo gën a ñàkk fayda Ismaïla Yaasin maanaam xe ay picc la ñu xeebuñu mbay mm-hmm. maanaam ñoom bawuñu dara mm-hmm. am na góor ñoo xam ne nii Babacar la ñu mel ñoom daal xam ngaw xob ni muy naawee jikko jooy xob la ñu yor fu leen ngelaw fekk meeb leen yóbbu leen te ngelaw nag bu la yàbbee yàggee meeb di la du yóbbu dina lugal ci pax moo xam ne nii dootoo fa génn ami billaay doo fa génn dootoo fa génn waaw bàyyi <laughs> ami àddina dafa nekk loo xam ne nit ku nekk mhm. euh, li nga bëgg ngay def tey jii man euh, jàpp naa ne mënu ma nekk juge yu kenn ndax mhm. juge bi kenn la mhm. borom mbaar mi ci kaw tey jii ku ci nekk nag bu fekkee ne da nga jàpp sa xel ne li ngay def moo nekk yoon yoon baa ngi noonu mais man dama gis ni comme li ma xëcc sànq rek li ma abordé sànq moom mooy tënu moom nit li nga bëgg gis si moom nga gis si moom ndax yàgg nañ fee gis ñuy violé ay ibaadu sànq nee nga ku fekk si Babacar moo ko wax bu ku fekk si nit mu toog ci pooju ndeyam nekk seen biir kër du ci colin gi du ci waxin gi ñu violé ko kooku yàqalu ko dara ah kay. déet waxu non fi may waxee Fatim waxuma yàqalu ko dama la balaa may ñëw foofu da ngay ñëw fi ma jëkki dama la ne ki def loolu. waaw bu fekkee fi nga wax moom intéressé nag. kon ba tey mais man itam damay bañ nga boole mag àddina dama la ne ki ñëw def si musiba mu ki ki fekk ki ñu yar mu toog toog fa mu war a toog mu violé ko moom ak mbon moom kooku daa bon. kooka moom bon na ko jàpp mais li tax ma ne yàqalu ko dara mooy xëy na violé na ko mais ñëpp dinañu seede ne que Fatima mii dañ koo tooñ waaye nit ku baax la kooku bu ko góor gu baax gisee dina ko takk teral ko wan ko ne bonoo ku bona la fekk si yàq la léegi yaa ngi dégg man côté boobu laa waxee amoon naa sama prof euh, SVT bu sem Cambérène temps collège moo ngi doon naan àddina ñam naa ko neex na bàyyi naa ko amul fenn tey ji ki xam dañ koo violé ñaari aspect moo mën a am jaar fa bañ góor jaar fa yàqu ba faw tey jii damay ñëwaat à chaque fois ci point bi nga xam ne nii man jàpp naan ba tey góor gu ñu violé amul góor gu fi def lu ne dalaa neex te faiblesse weesuwul jigéen nee la doo góor doolii lii doo lii rek non damay wane sama ngóore loolu faiblesse la ma damaa gëm sama bopp. waaw pourquoi doo góor ah. góor itam lu tax nga koy xool ne ko doo mais lan moo tax ngay xool góor ne ko doo góor. xam nga loolu tey lan moo tax jigéen war a am bët moom ak fit bu toll ni taxaw ak góor yàlla mu taxaw nga xool El Hadj Diouf mais ne ko doo góor. loolu rek viol la loolu loolu erreur gënu ko. loolu rek viol la kii waxal ak moom ami. dama ne Babacar loolu rek viol la xool góor ba mu neex la nga <laughs> doo góor waaw mais papa demeewul noonu fu mu jaar woon la boppam déedéet lu ci bëri ah. lu ci bëri ah. dañuy fekk si ndaw si biir néeg bi waaw ndaw si soxla leen ñu bañ mu commencé doo góor waaye. jaar na génn fële waaw waaw lu tax ma war a wane foofu sama. loolu ku violé loolu ku violé papa viol amagul. xam nga moo tax viol amagul. ku provoqué. man day kii waaw foofu ngay wax. ku provoqué. waaw provocation ngay wax mais jigéen moo baaxoo provoqué. Ah, kon loolu moo tax yàlla wàccee ci àddina papa jigéen moo baaxoo provoqué. kon moo tax yéen a ñuy moo tax ma ne la. waaw yéen a violé xale yi de wallaay waxam ji aju la ngooñ. yow day xam nga ne da wax ji ngay Eh, xam nga. parce que yow jigéen eh, ne nga ne eh, waa bu njëkk dañ daan tere jigéen sax mu gaanuwaay ci mbedd. waaw. waaw wallaay la jigéen da daan gaanuwaay ci mbedd. sacré de góor dikk di gaanuwaay ci kaw gaanuwaay bi. Ah, pour am plaisir. waaw mais jigéen a <laughs> mais c'est sérieux. waaw mais docteur wax na dëgg ah, parce que tamit euh, hmm. ci bu ñu ñëwee ci li koy waral yëpp c'est vrai man damay faral di wax ni plutôt que jigéen ñi jéem a xool nu ñuy puniré violeur bi ñu xool nan la ñuy éviter violeur bi mu violé hmm. parce que tamit euh, au lieu ñu mettre l'accent rek ci nañu punir nañu punir ma ne même bu ñu puniree fekk na bay wéy wéy na mbuus waaw ki ñu koy def def nañ ko ko ba pare. Mm-hmm. Mm-hmm. lii defar askan bi du nii bu ki li bu def amee ba pare ñu doog a jóg. Mm-hmm. liñ naan wolof di wax naan euh, bu ndox tuuru an baax ca des. balay balaa ndox di tuuru ñu xool. nu naka la ñu war a mën a def ba du fa si. te loolu moo am solo jigéen ñi fi nekk ci association yépp nag. doo ci dégg kenn mu àddu ci. naka lañ war a mën a def ba viol du am mais naka lañ mën a def ba kii violé ñu ti maanaam ñoom sax ñu mel ni dañu bëgg viol am ba pare ñu doog a sanctionné c'est-à-dire que dans réflexion bi non mën nañ ko def xam nga tax. am na xam ne c'est psychologique. waaw am na góor yoo xam ne tey jii ku gis rek foog nañ ni mën nañ am ci yow yoon. xaaral ma ñëw ñoom seen biir bopp lañ ko def non non du du question yéen jigéen ñi yéenay a ay problème yo waaw bàyyi ba docteur Par rek xam nga li am solo foofu mooy lan d'abord suñ suñ askan bi léegi ni ñuy dëkkee Euh, te day dafay am solo ñu bàyyi ci xel dëkkuwaay bi. environnement bi. environnement bi. Hmm. nga nekk ci biir kër. te ñi hmm. ëpp ci ñi ñuy faral ñuy violer en général bu ñu leen xoolee ci études yu bari dañ naan dañoo bokk ak ki ñu yoole mm. mm. mm. maanaam am nañ fu ñu laale soit mbokk la mm-hmm. wala mag la wala cousin la wala yu mel noonu ñu ci ëpp ci ñuy volé mais raar ngay gis ku jógee ca àll ba àll ba ñëw def ko ndijaay lay doon ñu daje ci yenn ndijaay lay doon maa muy mag moo koy waral mm-hmm. donc lan mooy indi loolu parce que proximité boobu am ci seen biir mm-hmm. ba tax na tamit càggantef ju bëri daf ci am rawatina jigéen li sama mam nijaay wax léegi moo am solo. Mm-hmm. Mm-hmm. jigéen énergie la jigéen puissance la man loolu lay faral di wax. Mm-hmm. alors puissance boobu nag su fekkee ni moom dafa dem ba bàyyeeku boppam. musiba day am moo tax dañ daan fàggantugu lu bëri lu ñëwagul. nga nekk ci biir kër war a sangu ji def teraxlaayu. waaw. ah. waaw génn romb. waaw mën nga sax romb ma sàmba moo xamante ni xañ na sax mosula xool. mais romb gi nga ko romb këf nga ci moom dara loo xamante ni bàyyee nga ko fa dara. Mm-hmm. dëgg la te benn philosophe dafa wax ne nee na les actes manqués et les désirs dëgg la tiennent toujours l'individu en esclave. maanaam li nga bëggoon a def defuloo ko. Mm. tant defoo ko doo nekk nit. Mhm. li nga namoon a ñam ñam ñam nga mooy mhm. tànk yeggaloo ko doo nekk nit mhm. donc bala illaa yow mi diin da nga dem ba nekk mag sax wëlbati ko dem ci xale ndax lan moo koy war a mooy jamono ba ngay toll si tuut tànk boobu dafa amoon loo xamante ni daf laa manqué la fokkoon mu rëcc daf laa manqué waaw donc mais dañuy fexe ba man li ma ëpp ëppal solo ci xeex viol c'est pas ñuy sanctionner violeur mais ñu xool lu ñuy def ba éviter que violeur boobu du def. di mu bëgg a def mm-hmm. te loolu noonu tant que mettre ñu l'accent là-dessus. Mm-hmm. di wër di wax association féministe nangam nangam waaw violeur nañ ko criminel. lu tax mu dañ parce que prison yi ngay gis nii mhm. bu fekkoon prison lan moo ko tax a jóg c'est pour euh, régulariser sanctionner mhm. Mhm. mais chaque jour mu fees rey nit buñ ko criminaliser du teye ñu xëy gis ñu rey nit donc viol quelle que soit pen bi ñu ko teg même perpétuité bi ñuy wax du tax viol bu jóge fi day continuer day am parce que non seulement phénomène la mais li tax muy am ba léegi moo ngi fi te jii mu ñoo xool lu tax ñu war a mën a fexe ba teg fa baaraam ba loolu dellu ginnaaw parce que sujet bi dafa nekk loo xam ne dafa xaw a tabbu fii ci Sénégal yow bu ñu la violé tu préfères noppee ko que nga dem wax ko. Mhm. mu fajal la ko. voilà parce que xam nga tamit euh, li tax ki nga xamante ni euh, jigéen bi dañ ko sàkku. Mhm. mu bañ ko mën a wax. Mhm. parce que soit mooy li may faral di wax rek ci société bi dem nga foo wartoon a dem. bu fekkee da nga dem fi nga warul dem bala la fa fekk fekk la fa. Hmm. da ngay am kersa wëlbatiku di ko wax. Hmm. bu fekkee ne da nga bokk ci famille boo xamante ni xañ na ni famille bu valeur la mais yow. koo xamante ni xañ na euh, lañ dañ ñaan xamoon nañ ko bu la dalee. Hmm. ñu ci bëri tamit yeddaange day ñëw. parce que nit ki li nga def ba pare yeddaange dab la. ci ngir yeddaange nga nga xam ni yow sa jëmmi bopp. fii du woon sa jëmuwaay. wala col gi nga coloon du sa woon colukaay melokaan bi nga melowoon war woon koo mel. donc nga yedd ci sa bopp nga ni naa ko far topp parce que su ma ko waxee non seulement duñ ma gëm mais dinaa mën a yàq sama deru waajur yàq sama deru askan ba tax na yooyu yëpp tey damay préférer ma noppiwaale ko dundaale ko sama bopp deewaale ak moom sax moo gën ma wax ko donc li koy waral yëpp rek parce que jigéen gi ci boppam dafa xam ni moom coupable la yu ci ëpp bu amee nit ki noppal dafa xam ne coupable la am na yoo xamante ne dañ koy nëbb parce que dinañ xam ne ki ko def mag la ki ko def euh, rakk la ki def mbokk la mm-hmm. loolu dañ koy yëg ñu daal di koy def póotum biir waxtaane ko nëpp nëppal waaw parce que tamit nëpp nëpp boobu du question ni dañ ko nëpp nëppal mm-hmm. même en droit dañuy faral di wax ni la la meilleure donc des justices mm-hmm. n'équivaut pas à un règlement à l'amiable maanaam justice boo mën a rendre ak nu verdict bi bu sete set mënut a yem ak waxtaan ba jiboo mm-hmm. te nag mbokk tamit li koy defar la ko gën li koy yàq donc te loolu valeur la ci société donc euh, féewaloo ñàkk déggoo du ñàkk ci société moom ci ay mbokk waaye tamit du ni parce que euh, ki ko def rakk la nangam la def na ko ànduñ ci su fekkee dañ ko noppiwale ñeneen ñi nga xamante ni dañ koy kaas nag féministes yi dañu jàpp ne dañ ko noppiwale déedéet mm. parce que defar seen société moo tax ñu noppiwale ko mm. mais jubluwuñu ci yàq parce que jël ki nga xamante ni yóbbu ko yoon mu am ni tas mbokk ñi mm. jaar fii ñi jaar fii mm-hmm. ku nekk dem sa ngeen defarowaat ànd ba pare fexe ba loolu lu am dootul amaat. loolu la ci société di jublu mais jubluwu ci ni dañ ko bañ a siiwal dañ ko bañ a. Euh, xam nga dafa am wax bu am solo boo wax léegi. ne bu jëkk jigéen sërëm daana naaw rek góor ñëpp daanu. lan moo waral nag tey nga sol mini romb góor. du la xool mais affaire la te moo bari. moo bari ba pare te ñu ko xanaa mais loo nëbbul ne ko fan mais doomu aadama vraiment vraiment man damay jekk ba ceeg bi damay day damay day jigéen ba ceeg ma jooy parce que xam nga lu may jooy dafa am foo xam ne boo fa àggee ci age dootoo dégg man nit nit nit mënta wax lu feet samay nopp mais damay yëg yëg-yëg nag boo fa àggee day metti bu ma gisee lu bon damay feebar léegi bu ma gisee lu baax walla ma dégg ko damay dal di firi te yenn saa yi nga daje xale bu jigéen bu rafet mu ànd ak màggatum tubaab moo xam ne am na quatre-vingts ans ko croisé ko biir Dakar bu ma dee yow damay jooy dama naan kii li ko def loolu lii rek mooy alali àddina te lépp fi lañ koy bàyyi deret jii du fen borom a koy war kenn du niru bokk jàmbur ku nekk say bokk ngay niru mm-hmm. mais doomu adama li mu namp rek lay tokkamtiku dégg déggoo ji ñu ne jigéen jànganiwul nday jaay royukaay waaw hmm. ah? mais bi ñu libéré nag jigéen hmm. ne ko mën nañ laa bindal carte boo xam ne bu la neexee jaay li nga yor foo at hmm. la jëm <laughs> loolu nag kayit woo xam ne waaw da ngay ci mbedd mi di jaay sol lu set taxaw say poj di feeñ ku di ko waxaale yow waaw léegi nag bu fekkee ne mburu mi ci bitig bi moom jigéen ña fu àdduna jëm <laughs> en tout cas en tout cas wax ni euh, lu lu lu am am solo la te man jàpp naa ni xeex bi nit ñi di xeex ci foofu lañ ko war a teg. Mhm. parce que des fois réer weesuwut nga gis li la war a mën a feeñal di tàññal ñal jëm ci feneen. Mhm. parce mbirum viol moom pour ñu régler ko. Mhm. wala ñu wàññi ko sax laay wax ndaxte du fi mës a jóg. mooy ñooñu fexe ba au lieu ñu koy punir ñu euh, euh, prévenir ko. prévenir boobu doo ci dégg mukk nit ñi di ci àddu te dafa am solo te doomu aadama nag doomu aadama la rek mhm. di nga ànd ak sa sago tàggook sa sago mhm. te li pël bi waxoon rek nee na boo ca tolloo jar na géttu nag mhm. moom rek moo ko mën a wax ne na boo ci tolloo jar na géttu nag waaye ba paree jarut mbote xam nga mbotti ba géttu nag. bul pour war a natt ne nit kooku. bu ah. jaroo doon jaay géttam ngir rek yegg. yegg dëgg la nee na bu bu paree jarul mbotti mbotti mooy li gën a ci gi mooy xaar kon nga gis dégorongalaat bi am ci diggante bi. nga xam góor gu bari xam-xam. saa yu ñu paree ci lañ doon jëf ñu rëccu. Mm. même ñi nga xamante ne dafa légal sax. dañ naan seq lu legaal lu lew. Mm. góor gi koy seq ak jigéen sax. billaahi ñaari mbir rek la bëgg. bu ca paree nelaw ak ñu tàggal ko boppam. Mm-hmm. pare. amatul leneen. kon bu ñu fa ba fa nit di toll fexeel ba bu mu fa toll. fexeel ba yow li nekk ci kër moo xam ne da ngeen bokk bërëbu liggéeyukaay. moo xam ne da ngeen bokk kër. moo xam ne da ngeen bokk fi fexeel ba yow. li nga xamante ni mooy aar sa yaram di koy aar. ngeen fexe ba lu mel noonu di nekk ñàkk buy dox seen diggante c'est très important. xam nga yaa ngi may nag nit ñaa ngi ji maanaam sàggane lu mel noonu. surtout jigéen ñi. di koy sàggane. musiba rek. Mhm. parce que lu mel ni du fi jóg ah. <laughs> daa mel ni dafa am musiba nga man. <laughs> man mun ma d'accord ak ñoom. Ah. parce que ñoom dañoo bëgg jël lépp teg ko ci tenue. Eh. mais léegi ñi nga xam ne nii dañoo muur ñu violé leen ñoom luñ def am ñooñu defuñ dara wax na léegi ne loolu dañ leen a siif xam nga beneen bi ci topp moom mooy tey jii nii des fois yëre mhm. ak nu nit ki mënti mel comme li ma wax sànq mhm. silhouette mooy loo xam ne nii ak loo mun ci sol feeñ yar yar ñàkk yar sa bopp da ci am place mm-hmm. góor dangay ngay diiñ mm-hmm. tey ji man su ma doon am jëkkër taamu naa jëkkër joo xam ne du lu romb këf ko mm-hmm. góor dangay nangu di bañ nangu am loo bëgg tey jii man nit boo ma bëggul bëgguma la man loolu dama koy assumer boo ma bëggul bëggu bëgguma la beneen bi ci topp mooy bu ñu demee ci wàllum société sànq nee nga di nga gis ni koo xam dañ koo violé après affaire bi nekk ci wàllum famille affaire famille ñu ne. nañ ko waxtaan nañ ko nëpp nëppal. Mhm. nga ne loolu dañ koo def pour defar société. Mhm. ñooñ defar société ku góor gi mais defaruñ ko bu jigéen bi ndax ki nga xam ne moom am góomu xol ki nga xam ne moo am li ko metti kooku nëpp nëppal faju ko parce que jamais au plus grand jamais li koy metti nëpp nëppal mun koo faj. tey jii ni benn affaire la ñu mën a def au moins ñu jàpp ni. Mhm. mën na koo dimbali. mun na koo soulager moom mooy ñu jéem a teg benn daan. war jëm ko teg benn peine certes war nañoo prévenir avant de guérir mais tamit yar gi man dama ci ñëwaat ba tey yar gi góor ñi ñoo yaroot ci nëpp eh, la boobu ilaaha euh, wax euh, yaruñ seen bopp maam ñu seen bopp am yenn affaire yu métti dañ koy dund wala sax dañuy am problème pour nekkaat ak beneen góor. waaw waaw loolu moom bëri na ci parce que nit ki nga xamante ni anam gi ñu la jëlee. Mm-hmm. même même bu lewee ah. parce que góor ci boppam c'est vrai moom la ñuy wax le caractère violent. Mm-hmm. de ce fait que même loi bi tey jii sax di nga takk sa jabar dem ak moom nuy denos mm-hmm. ba pare euh, defar def def violé ko fa. parce que ni koy jëlee góor. dafay wane dangaram xadaram maanaam góor su koy buy jël jigéen dafa koy jël ak doole jël koog mën-mënam nga gis ni ñu am nañ si ñoo xamante dañ leen gaañ gaañ goo xamante ni sax si la doxee dootuñ sax bëgg a seq ak jigéen góor lu ñu mel rawatina nag viol effectivement lu metti la cest di dire que nit ki nga xamante dañ ko siif te lu ñu la mën a siif mu metti maanaam jaaraluñ ko ci anam yi war yi nga xamante ni sa xol àndu ca évidemment dina am lu muy bàyyi sa bopp ba tax nañu ci bëri tey jii dañuy souffrir ci société bi évidement am na ñoo xamante ni jigéen ñu bëri ñoo xamante ni da nga leen di gis rek seen jëmm waaye des fois nga waxtaan ba tollu fa rek seen nangoñ tuur nga xam ni ñoo ngi dund lu metti saa yu ñu gisee góor silhouette lootu la ñuy gis maanaam kafa jaaroon mooy mooy faral di ñëw nga xamante ni pour ñu wér ci lu mel noonu day jafe. c'est vrai nag am na ay psychologue yoo xamante ni mën nañu fexe ba nit ki li mu jàppoon tey mooy gàllankoor gàllankooram ak dundaam mu dundaat ko mu neex. mu mën a wëlbatikuwaat dundaat ko ci yeneen anam yoo xamante ni yu mu ayib. ay ni fii ci Sénégal tamit communication bi ci côté boobu dafa manqué parce que boo demee ci yenn réew yi dañoo ubbi ay centre yoo xam ne buñ la violé mën nga ko yóbbu nit ki ñu delloo soit xelam ndànk-ndànk mais fii nii dañ koo def tabou de sorte que yooyu farataaluñ ko à part loi yi nga xam ne voté nañ ko criminalisé évidemment bokk na ci li mën a jigéen bi parce que tamit su fekkee ne amul projet bu mel noonu ñu accompagner nga xam ne dañ leen a dina jafe lool ci ñoom su ko defee je pense bien que ni ci bataille bi ma lay wax rek du yem ci rek ñu daan teg nit ki daan mais jigéen gi ci boppam ñu xool yan anam la ñuy fexewaat ba mu intégrer société bi ba nga xamante ni dundam dina gën a mucc ayib donte ni dañoo jàpp ni dañ ko faagagal ci diggante bi ci kaw loo xamante ni yan wut maanaa donc règlement règlement yooyu yëpp tamit dañ ko war a jël en compte y compris bu amee ba pare nu ñuy fexe ba gunge euh, ki nga xam dañ ko sàkku ba mu mën a dellu siwaat ci xelam ba nga xamante nii lépp lu luy luy amour jëm ci sexualité mu mën ko ñimewaat dundat ko parce que droit am la ci moom mu am bànneex yëg-yëg sëy ni bépp jigéen boo xamante ni tey am nga sa droit nga sëy wax na ko léegi effectivement am na xamante ni mën nañ si jógee doxe bëgg góor ba faw parce que mbir ma dañ ko tàxxamtu ko xëy na neex na ci ñoom ñu def ko yoonu tool am na ñoo xamante ni dafay dox bañ góor ba faw mm-hmm. donte ni sax dañ mën nañu nekk seen néegu sëy seen jëkkër bañ koo xam ni kii mosoon nañ ko sàkku mais saa yu am ak séq ak ñoom xel maa ngi dem ca waaje ko defoon lam ko defoon ba du mas a am bànneex donc am na ci ci mais nag euh, du loo xamante ni lu ñu war a deewaale kersa la war nañ ko mën a wax mm-hmm. ci nañ ko mën a wax am na ñoo xamante ni yàlla may na leen xam-xam may na leen xel ñu mën leen a gunge tagal taragal tagal leen ba nga xamante ni dinañu mm-hmm. jóge ci lu mel noonu. Mm-hmm. dundaat seen dund ci lim gën a amee am solo. Euh, loolu nag jigéen ñi ñu ci war dama wax léegi ne. Mm-hmm. kenn mënul leen a rey. <laughs> yaa ngi may rey joo dégg. nga ngay góorgóorlu. yaa ngi rey sa bopp. dafa am nag ah euh, dafa am wax bu wax léegi. dafa ne lan moo tax. Euh, nit di siif nit léegi ñu waxtaanee ko. mu fin ci biir famille bi xam nga sa nijaay bokk ak sa yaay ndey ak baay àndul ak xelam ak xelaatam seet li mu bokk ak yow seet ne sa yaay nàmp jox ko mu nàmp wala mu nàmp jox sa yaay nga màgg rafet rek romb ko rek gisatul jarbaat yi nga doon ci moom gisatul dara kooku bu bu la siifee dañ koo war a rey mm-hmm. waaye dañ koy waxtaan waxtaanee ci biir mbokk xam nga lu tax lu tax euh, euh, docteur wax la loolu. Mm-hmm. dafa am loo xam ne xaajul ci mbedd. xaajul sax ci digg ëtt bi. Mm-hmm. ci biir néeg lañ koy wax. Mm-hmm. parce que nijaay. mooy nijaay bàjjen mooy mooy baay. waa léegi nag nga xool ne mbokk mu la jigéen. te docteur wax na ko léegi. ki lay violé toujours. yéen bokk kër gi. waaye léegi maam ma laaj la. waaw xam nga dafa tool foo xam ne nii. gis nga lu ñaaw. waaw lu ñaaw. man jàpp naa ne lu ñaaw ñaaw na ba pare. ñu mm. too jekk jekkal ba mu jekk. sama nijaay. Mm. bi bokk sama yaay. waaw seexlu ma man jarbaatam ba sekk ak man. waaw man jarbaatam du ma ko seexlu yóbbu ci yoon. déedéet sa yaay. bu la nee maa la jur. Ah, te kii sama càmmiñ la. ñu bokk ndey ak baay boo ko tëjee mën nga tëj. ma ne ko yaay xoolu ko. déedéet doo déedéet doo tëj sa nijaay. <laughs> xam nga yu ci bari. arrangement yi noonu lay doon waaw arrangement yi maam lu ñaaw ñaaw na ba pare kenn mënatu koo jékki-jékkal ba mu jekk def na lu ñaaw lu ñaaw rek ko koy tontoo déedéet àddina loo euh, gis dañ koy waxtaane ci biir ci biir ci biir ci biiru bokk euh, waaw yow da ngaa nekk yow yow tey rek ngay wax te kaay ma nag benn affaire euh, xale bu bëggee gudd fan uh-huh. na moytu ak fiir akum mbëpp maanaam sàkku yàlla na nga gudd fan yi mag te daw su booxul ma lay mag mhm. dafa am wax bu am solo bu mu wax léegi mhm. muy éducation yar lépp a ngay commencé ci yar mhm. te yar sa doom du juddu rek docteur wax na ko fi keroog sa doom du juddu rek nga ne dama koy yar déedéet da nga koy wutal yaay ju baax. Mm. bu ëllëgee nga am ca ku baax. boo ko yaree mu yaru. Mm. mu doonoon lu am solo ba tey rek ci fàttali ñu ngi ci seen émission ëttu maam Papa Ibou Ndiaye xam naa wax ci xaju fi tey waaye rek dañuy xaar ba beneen yoon après ñu yeggali ko lan mooy sa dernier. fas sañu yéene. Mm-hmm. Mm-hmm. ci kattanu yàlla ak yonent bi. Mm-hmm. ëttu maam bii. bokk ci émission yi àdduna bépp di seetaan. parce que wax nit. bu la woy ak nit ak waxayam bu la mënta yedd mënulaa yee mënulaa digal mënta mënta dawloo sa yaram jarul nga di ko déglu wala nga di ko seetaan li tax nag Equivox jóg mooy éducation ak sociale éducation doomu aadama bi bu yaruwul lu mu social mu yàqu dëgg la parce que yar ak teggin dafa am solo ci àdduna te dafa am ñaari ñoo xam ne yéen ndaw yi yéen lañ ci yaakaar yaakaaruñ ci ñun ñun màgget nañu. waaw mais ndaw nag bu fekkee ne moom la ñu yaakaar ci diine ji. Hmm. ndax xale yooyu mujjee diine ji. Hmm. ndaw xale yooyu mujjee réew mi. Hmm. kenn ñaanul yàlla jiital say doom soog a dem. da ngay dañuy ñaan yàlla kañ. bàyyi fi doom yu baax yoo xam ne bu ñu demee. barsax ñu di ñu ñaanal. moo tax jeunesse Sénégal lay waxal changement bu rëy war na am ci anam yëpp nag. ak rawatina éducation. éducation doomu aadama dinañ ko booleeg dooleem toroxal. doomu aadama dinañ ko booleeg alalam toroxal. doomu aadama dinañ ko booleeg dara jaam toroxal mais doomu aadama kenn du ko booleeg yaram toroxal. te xale yi yarootuñu. tamit dëgg. waaw li ñuy wax mag ñi seen seen mbuus wéy na ba pare ñun ñooy avenir ñun. yéen a yéen la yaakaar. solo sa dernier mot lan la. non Ami man daal sama dernier mot day nekk à chaque fois góor ñi mm. ah, man d'habitude ñu bëri dañ may naan góor ñi lay faral. yow nag du ma jëw ak yow. <laughs> non man góor ñi laay waxal. waaw man dama bëgg góor ñi nañ gën a gëm seen bopp. man dama bëgg nit bu gëm boppam am. yéen jigéen ñi gëm ngeen seen bopp. non dama bëgg expliquer moom mooy tey jii nii. viol te nag <laughs> mu ay habillage ah. rek ñu. ah dama ànd ak benn xarit. <laughs> muy muy ngénte këram. habillage di wóoru. muy ngénte këram. waaw lan mooy habillage ba pare. waaw dañoo xarit. muy génte ñu jekk ba cag rek benn oto freiné bongo yu commencé door ñu ne wasin wi ñëw na bi mu dikkee ba nuyu jëkkëri jëkkëri dafa ne non non non du moom mu ne mu ne non non non kii du sama jabar mooy abiyax ji nag pour da ngeen di monter ay xet la ñuy def nag di monter ay ay ay ay lex di monter ay tuñ eh. lu ne ngeen di monter mais même ngi noonu moo tax nag boo jógee nag ne non moom moom moom du ñuy juboo maag moom parce que lu mu wax ba xëpp ci suuf bu neexee la parce que lañu daan dund démb ak li ñuy dund tey du bokk du benn bokkul li tax mag ñi daan dund téeméeri at waaw bi daay jógu fi ah téeméeri at jógu fi demal àll ba nga xool téemé téeméeri fanweeri jógu fi boo duggee ci àll bi gis ñu dund cent trente ans boo demee gis xam nga ñi nii rey ñu rey ñu ci doxalin defin ba ci toggin mhm. góor ñëpp yom nañu mhm. ndax kii bii ñuy togg. lu ne saf safal <laughs> kii ak. Ah? ah mi <laughs> waaw man daal sama góor ñi laay incité ndax man yéenay samay xarit. Mhm. man yàlla dafa dogal yéen laa xaritool. ah moo gën de. dama leen ñaan rek di leen ñaaxaat ngeen gën a gëm seen bopp. Mhm. bu dara fëkk seen i bët. parce que wax wax la rek. ci làmmiñ la jóge ah taxul mu dindi li nga xam ne ci lool nga nekkoon. Mhm. gëm leen seen bopp ah di. nuyuwaale sama yaay sama xol sa Poula Dieri. naa ko mel nee na mi da yit ma fu ma toog fu ne yow laay xalaat. sa papa ah, <laughs> beaucoup Ato waxtaan bi am na solo am na lu ñu fi jukkee loo xamante ni amal na ñëpp njëriñ mais li may wax rek accent bi toujours man dama naan te dama ko gëmaa. Ah. nañuy prévenir que di punir. Mm-hmm. jigéen ñi nañu bu ñu bëggee xeex viol. nañu mettre curseur bi sur la prévention plutôt que mm-hmm. sur la punition mm-hmm. loolu man pour man lu ama ama am solo la nañu fexe ba xool naka la ñu war a def mm-hmm. bu viol du am plutôt que ñuy xool bu viol amee nu ñuy def ba punir bu ñu prévenir rek dinañu fexe ba punition yi wàññeeku alors beneen mbir mi tamit mooy ñi nga xamante ni jot nañ ko dund mm. te du ñàkk mm. ñu xam ne am na ñoo xamante ni ay psychologue lañ mm. yàlla may na leen ñu mën leen a gunge ci anam yu mel noonu ba ñu delluwaat ci seen bopp parce que tamit dafa am solo dundin ngi neex na ñi koy dund mu neex. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni bu ñu sañoon dundee ko nu mel noonu. Mm-hmm. lu tax mënuñ ko def parce que mm-hmm. am na ñu yàqu seen àdduna. waaye bu mu tax tamit euh, lu mel noonu ñu toog rek jàpp seen njàmbur dañu dellu siwaat ci ñeneen ñi. di waxtaan di ubbeeku nit ñi ba xëj na yàlla dogal. ñu dellusiwaat ci anam yu gën a ëpp mucc ayib dund seen dund mhm. donc loolu daal moom la amoon yu may jeexal am na solo Babacar xaritu Fatima <laughs> waaw waaw Fatima ah, Fatima <laughs> ah, di nuyu ñi doon suivre rek xam nga du mën a ñàkk parce que comme ni ñu koy waxee rek émission bi moom li ñu si jublu lenn la rek joxe suñu xalaat parce que tamit ay sénégalais lañu Equivox su nekk benn groupe de presse boo xam ne lépp loo xam ne daal intéressé na sénégalais yi ci lu mu mën a doon dañ ci fas yéene waaw voilà su information sport ak lépp lu mu ma doon religion ba lépp éducation dañ ci fas yéene di waxtaan ak sénégalais yi bay ci suñu laaj parce que tamit olof ne na ku yokkul yaa wàññi loolu moo ko tax a jóg muy groupe boo xam ne ay xale lañu yuy jóg ñu ngi sàkku ñaan ci ñépp ñi nga xam ne ñu ngi fu ñu mën a si àddina bi rek nañ ñu sànni ñaan tamit bu ñu amee critique bu ñuy jox en tant que jeune nañ ñu ko jox parce que tamit dañ koy soxla fi ñu jëm parce que nit du mat te nit itam boo nee damaa parfaite rek ça veut dire yaa ngi dugal sa bopp ci giraawaal yi kon loolu lay demandé ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ay téléspectateurs ak sénégalais yépp di nuyu borom kër gi nga xam ne moom moo initié groupe bi ba def ko teg fi ay jeunes boole leen ak ay mag suñu papa ji yàlla na yàlla def mbir mi barkeel ba yegg ci bi nga xam ne xalaat nañ ko mu romb ko foofu barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax rek léegi paa bi daa wax lu am solo nee na picc bu bëggee euh, xale bu bëggee gudd fan day mooy fiir mooy mbëpp njaga mbay ña yàlla yaram ba muy way Youssou Ndour ca suraanu noonu na ko picc bu bëggee gudd fan day mooy fiir mooy mbëpp mooyu mhm. nga sa noon yi fonk nga sa soppe xoolal ñi la wër tey ak bànneex bi mu àndal loolu daa am lu koy indi am na yoon woo xam ne wala dëkk boo xam ne soo fa bëggee yegg ami la bëri faw nga muñ ko comme li Fatima wax dëgg la dama ko si fekk si nit ku ma mënanta doon war nga am fulla ju toll ne nag nit ki soo ko bëggee mu bañ mm. yow itam wax dëgg yàlla mm. bu ko bañ en mm. tant que doomu aadama de waaye génnal ci moom nag génn ci lu mu àndal moo xam góor gi la moo xam jigéen gi la parce que nag fu laay jaay daqaar wala ma ñam jeexal ko yaa ngi dégg li ma lay wax kon loolu moom laa lay wax rek di wax ne que daal euh, euh, tey dafa am ay baat yoo xam ne su ko olof di wax dafa baax ñu di ko déggtal nit ñi mooy xam nga fii rek mbëpp ñaari mbir yu bokkul la mm-hmm. mbëpp moom dañ ko daan ràbb ñun takk ci benn buum mm-hmm. defar ko nii sotti dugub ci suuf nekk fële di séentu picc mu dugg rek bu ñu xëccee rek mu wàcc ci koom ñu dem fekk ko fa bu dee fiir gi nag moom ay genn fas la ñuy ràbb rab ko ci takk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 ci yow te ñëpp am kilifa nag nangu ko kay la ñuy wax ndax ku wàcc ci àddina am nga ndey am nga baay am ngay nijaay ki bàjjan waaye nag ami da ngay déggal say kilifa bu ñu la digalee nga def buñ la teree nga bàyyi même lañ la wax bu dëpp dëppwul ak yoon sax nga rafetal indi teggin ba def la la nga war a def lépp jaar ci kilifteef yàlla nañ yàlla may kilifa barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax moo ñuy muccal tey àddina ëllëg itam moo ñuy muccal jërëjëf voilà mu nekkoon seen plateau ëttu maam ñu leen di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen doon seetaan fii ci Equivox TV waaye nag du ma plateau bi te remercier wu ma ki nga xam ne moo jaar ci make-up bi ci man ak Fatima sax mu mimi numéro bi di 851 33 72 voilà waaye ba tey rek ki jaar ci yére bi tamit nekk Abdou nekk foofu ci marché Dior nga xam ne doon seetaan yéen nga xam ne yéen mais ami nag du ma la ñàkk dama que tamit man tamit faw mu nuyu faw ma am ñu mu nuyu parce que dafa bu may def ay émission rek su lu mu dañ dañ may jàppale ci ay solo ah mhm. ku mel ne hélas bu jéen kayre mhm. di suma xarit ñu yàgg lool lii nga gis ni ci ver ak noir mhm. moo koy ñaw. voilà jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi ñu doon seetaan à travers Equivox TV mu nekkoon seen émission ëttu maam ñu leen jox dig daje beneen yoon ci yeneen itam jërë ngeen jëf.